julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi yëkkati nuyoo bu tedd di ko nuyu sunu sëriñ bu tedd bi nga xam ni moo fi wuutu cheikhul xadim radiyallahu taala anhu di am mbégte itam ci toog gi ñu toog ak moom di ñaan yàlla sunu borom yàlla guddal fanam yàlla may ko wér mu dund at yu baree baree bari ndax damay faral di wax ni sëriñ taxaa dundam am na njariñ ndax gis nañu xew-xew yi xew ci réew mi taxawaay yu rafet yi mu ciy def bërki démb sëriñ bi accident bu metti bi xew ci dëkk bi ba mu xewee ca saasa sëriñ taxaa dafa digle ni nañu wàccee ay kaamil yamul ci jàng alquran waaye muy yëkkati ci poosam massawoo ko ñi nga xam ne ñoom la gàllankoor gi dal ci seen kaw bi fi corona bi ñëwee coow li bari bi nu ko dégloo dafa delloowaat xel yépp ci yàlla kon ñun sëriñ Muntaxa li yàlla wax ni ku am njëriñ danaa ko bàyyi ci àddina bi mu yàgg fi yàlla na ko yàlla boole ci ñooñu ndax yàlla ni wa amma ma yanfau nnaasa fa yamkusu fil ardi ku yàgg jëriñ nit ñi yàlla bàyyi la fi kon sëriñ Muntaxa yàlla na yàlla yàggal taxawaayam sëriñ bi nag ñëw nañu fi ànd ak sunu sëriñ sunu soppe sunu xarit nga xam ni tànk yu rafet yi tabaarakallahu moom la wéy juróom ba nekkoon waaye itam moom la maamam Seydil Hadji Malick nekkoon ndax sa maam Cheikhil Khadim taala anhu moo waxoon ni wa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida sawaun intama ila al aw intama li ahmad al tijaani aw li siwahuma min al aqtaabi is kulluhum qataan ala sawaabi tariqa boo mën a jàpp te bàyyi ko mu yóbbu la ca yàlla kon sëriñ bi sa toogaay bi toogaayu mbégte la jàppal ni réew mi ñëpp a ngi lay ñaanal ñëpp a ngi lay sant ñëpp a ngi lay gërëm réew mi ñëpp a la sopp ñëpp la bëgg ndax sa taxawaay ci réew mi réew mi bëgg nanu la ñëpp a ngi lay ñaanal ñaan yooyu nag yàlla na ko sunu boroom nangu nga yàgg fi at yu bari lool dund at yu bari lool ci darajey sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu nuhdi tahiyatan tayibatan atiratan li cheikh al karim zi xuluqin chamim acheikh al muhtaram wa ustaad al muxadram asayid Mouhamadul Mountakha Mbacké raahu wa xafidahu min kulli baidin wa xarib sëriñ bi nu lay nuyu Mbacké nu ngi lay ziyaara nu ngi lay ndokkeel bu baax a baax a baax ñaan borom bi subhaanahu wa taala yàlla bàyyi la fi nga yàgg fi te wér yàlla bàyyi la fi nga yàgg fi lool Mbacké te ni ko Seyd Alxaaji Muudu Fall mii waxe ne Serigne Mouhamadul Muntaxa Mbàkke réew mi ñoo ko deseel njukkal réew mépp a lay ñaanal Mbàkke tànk yii nag ànd sunu sang bu tedd bii sunu Serigne Serigne Sidi Ahmed Abdul Aziz nga xam ni moom sa soppe bopp la ni la njabootu Seydil Xaaji Maalik gépp soppee Sidi Aboubacar ibnu Alaaji Mansour Aline Diagne dafay dem Màkka ñëw ne ko Serigne dama bëgg nga wax ma lu ma lay ñaanal Serigne Babacar Mouhamadul Mansour xalifa bi ni ko boo demee ñaanalal Serigne Muntaxa rek boo ñaanalee Serigne Muntaxa moom bu jotee ci ñaan ga moom dana ko séddale Mbàkke loolu sa mbaaxu bopp la sa cëru bopp la waykatu arab ba waxoon ne euh, bëgg yàlla mos naa ca kaas naan ca beneen kaas la ma naan jeexul waaye màndiwu ma sharibtul xubba kësan baada kësin mu ni falaa nafida sharaabu waaye wala rawitu baayam nag Cheikh El Hadj Abdou ma waxoon ni kuy wax Tuuba Tiwaawoon ñaari dawla lanu fii dawlatin te warul wallahi koo ko xamul mu ni nangeen ngeen ko wax yéen ñi xam na noppi moo di la gën ndax fadlal ali moom newul ci loxoom ne Tuuba ak Tiwaawoon Njaasaan Tuuba Tiwaawoon ñaseen jaamal ak cene ba kazaaka wa njaasaan mu ni koo ci gis rek teralal sa maam nag sëriñ bi ak ak Cheikh Seydi El Malick mag ñëpp a baax waaye léegi dama wax sëriñ Maamun Loo mi ni ko maam Maaram Mbàkke la kenn xamul lu mu doon ndax ñaar ñii mu meññi kenn ku ci nekk not na continent yal na yàlla taas ñu ci seen barke waaye sëriñ bi am nañu mbégte ci jàkkaarloog yow bég nañu lool lool lool sëriñ Sidi Ahmed Abdul Aziz mu baax mii nga xam ni sa soppe bopp la réew mépp xam ko mi ngi ñëw ànd ak sëriñ suur si bu sëriñ Babacar si xalifa bi mi ngi ànd ak sëriñ Cheikh Omar si mu sëriñ Maodo si Abdul Aziz ànd ak sëriñ Lamtooro si ànd ak sëriñ Sama Tidiane Gaye ak njaboot gu tedd gi mu àndal yëpp délégation bi lim ko day gudd waaye sëriñ bi gis xam nga ni ñu ngi jub sa dëkku maam ba ca Jaksaaw nga xam ni Seydil Hadji Malick radiallahu anhu moo ko sancoon foofa moom Maodo daan fa jàng di bay ndax sa maam Maodo ñett yi la nekkee woon mooy ju ba jàng jàngale bay moom Seydil Hadji Malick moom nag jagsaaw googa bi mu fi bàyyi koo Cheikh El Hadji Abdou sa wayjur bu tedd ba sa soppe ba newoon fa moom góor gi radiallahu anhu waaye dem ba mu yàgg xew-xew bii dëkk dëkkmal njaboot gu nekk fa la yàllay féetalee tànnal eh, jël tànnee mu teg la ca yàlla nag ci njabootu Seydil Hadji Malick yëpp xel yëpp ci ndigalal baayam àndandoo dem ci Serigne Sidi Ahmed Abdoul Aziz mii nga xam ni boo nee jagsaaw xelam dem ci moom mii ndax taxawaay bu mag ba mu ci am sëriñ bi xew-xew bi nag la le 18 février bii di ñëw la xam nga ni délégation bu mag ba nga ca yebaloon bii paase cër ba nga ca am tànk ya nga ca def sëriñ bi daal loola ngay magam di xaritam di soppeem cër boobu tey jii lañu ko gën a feddali pour wax la ne jagsaaw sa jagsaawa bis boobu Mbàkke Bàlla sa bés la incha allahu taala nu ngi koy waajal di euh, le 18 février bii ñu mal mu nekk sa bisu bopp nga def ci ñaan sëriñ Seydi Ahmed nee na bëgg soxla na ci sa ñaan lool lool lool lool Mbàkke te it teraanga ya nga fa yónnee ba léegi jeexul waaye délégation ba nga fa yebaloon sëriñ bi keroog seeni kàddu kenn doyalul waxtu wa bu nekkoon juróom fukki waxtu kenn du bëgg a jug ndax da nga yëg seexul xadiim da nga yëg seex Seydil Xaaji Maalik radiyallahu anhu nu ngi lay ñaanal Mbàkke gudd fan nu ngi lay ñaanal wér euh, di ñaanal nag soxna Bali Muntaxa mii nga xam ni moom itam taxawaay bu mag a mag a mag a mag la am ci njaboot gi am ko ci taalibe yi loolu maa ngi lay yëgal Mbàkke mbooleem ñiy tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekk ci réew mi kenn ku ci nekk ma ngay jëflanteeg yow teraanga di ko di la ko seedeel di ko ñaanal gudd fan di ko ñaanal wér noonu la ñoo gërëmee sëriñ Mamoun loo waaye sëriñ Sidi yal na yàlla yokkul a dëgëral sëriñu Fadilu Mbàkke moom itam di ko nuyu bu baax a baax di ko ziyaara ak njabootu Seexul Xadim gépp bu ñu nuyoo mun Muntaxa Mbàkke daal ñun sopp nañu la sopp nañu la lool lool lool lool lool Mbàkke yal na yàlla gën la fi bàyyi nga yàgg fi lool lool te gën wér lool lool ci darajey Seydina Muhammadin sa barke maam Seexul Xadim sa barke maam Seex Sidil Xaaji Maalik Mbàkke jërëjëf ñu ngi jéggulu sax ci kàddu yi ñu yëkkati sa kanam ngi jéggulu sax ci yi ñu sa kanam ndax waxoon naa ni la yàlla waxoon saxaaba ya. nee na wax naa la la yàlla waxoon saxaaba ya. bu ñu toogateeg sallallahu alayhi wa sallam. bu ñu toogateeg sallallahu alayhi wa sallam. te mooy yaa ayyuha alladina amanu laa tarfau aswaatakum fawqa sawti mu ne yéen saxaaba yi bu ngeen toogateeg Seyduna Muhammad bu seen kàddu jëm kaw te bu leen toogandoog moom jëm kaw. te bari na jagleel gu yàlla jagleel sallallahu alayhi bari na jagleel gu yàlla jagleel sallallahu alayhi wa sallam. yonent bi daf ko donale ay kuutaayam. yonent bi da koo donale ay kuutaayam. amuñu sikki sàkk ci ne. ñu sikki sàkk ci ni. incha allahu taala. incha allahu taala. ci kuutaay yooyu la bokk. sëñ Muntaxa mii ci kuutaay yooyu la bokk. yal na yàgg lool. yal na yàgg lool. ànd ak wér. ànd ak wér. ànd ak kattan. kattan. wattuk yàlla. wattuk yàlla. ak kaaraange. ak kaaraange. ni ko suñu ñaari rakk yu baax yi ñaanee. ni ko suñu ñaari rakk yu baax yi ñaanee. képp ku baax mi ngi lay ñaanal. képp ku baax Mbàkke mi ngi lay ñaanal loolu. mi ngi lay xalaat. nit dina dem ba war a def lu defuwul. nit dina dem ba war a def lu defuwul. xelam dem ci yow. xelam dem ci yow. mu jàjjiwaat dellu gannaaw mu jàjjiwaat dellu gannaaw. nit dina nekk ci tànk lu baax. nit dina nekk ci tànk lu baax. ba ba ba nar a taayal. xelam dem ci yow. xelam dem ci yow. nga soññaat ko. nee Mbàkke nga soññaat ko. yàlla na fan yu gudd. yàlla na fan yu gudd. mashruwaat yii nga sumb. nee na liggéey yu tedd yi nga xam ne moom nga sumb. wuutu ci suñu maam Cheikhul Khadim. wuutu ci sunu maam ji di Cheikhul Khadim. wuutu ci rasulillahi. wuutu ci rasulillahi. wuutu ci yàlla. wuutu ci yàlla. yàlla na lépp àgg ak jàmm. na lépp àgg ak nga jiite ko. nga nga jiite ko. ñun njaboot gi. ñun njaboot gi. ñëpp. ñëpp. topp sa gannaaw topp ci sa ginnaaw. bég nañu Mbàkke. nee bég nañ lool. bég nañu lool. bég nañu lool. ci bi nee na ci bis rawatina ci waxtu wi. rawatina ci waxtu wi. fa tabaarakallaahu nee na fa tabaarakallaahu janloo ak sa jëmm ju tedd janloo ji wallaahi nee wallaahi wa billaahi wa taalaahi ci mbaaxu yàlla nee ci mbaaxu yàlla nee mbàkke yàlla nañ fi yàgg te wér te wér dina yokku nee na te wér gi mbàkke na yokku dina yokku ne kattan dina yokku insha allahu taala ñu ngi lay seedeel tamit nii Serigne Abo. moom suñu séddoo bopp la. nee na moom suñu séddoo bopp la. waxtu wu yëgee ni ñu ngi fi jëm si. waxtu wu yëgee ni ñu ngi fi jëm si. day takku taxaw rek. day takku rek mbàkke taxaw. fatabaarakallaahu fatabaarakallaahu. ànd koog. nee na ànd koog. sa turandoo di Serigne Mountakha. nee na sa turandoo jii di sëñ mu sëñ Mountakha mu Serigne Modou Bousso Dieng. ak njaboot gi yëpp. ak eh, eh, eh, njaboot gi yëpp. rawatina Serigne Mouhamadul Mamoun Lo. rawatina mbokki taalibi yi ci kër gi yëpp. fatabaarakallaahu nee na fatabaarakallaahu. ñoom Fallou Mbaye. nee na ñoom Fallou Mbaye ñoom ñëpp rek mbàkke ne jërë jërëjëf sëriñ bi ñu ngi dellu di jéggulu ñu ngi nag di jéggulu ñu ngi sàkku nag nee ñii ngi sàkku nag sa allahuma ngi sàkku mbàkke bàlla sa allahuma nda amuñu sikki sàkka ndax amuñu sikki sàkka allahuma laa adduru allahuma laa adduru sa ñaan nee mbàkke sa ñaan nee na mustajaaba duaa ukum nee na duaa ukum mustajaaba insha allahu taala nee na ñun mbàkke duunu doyal ci yow nee na te it yàlla buunu doyal ci yow neena na nun duunu doyal ci yaw mukk léeg-léeg mbàkke mu diis lool waaye waaye buñ la xalaatee rek day mel ni na day mel ni àdduna ci sunu loxo la nekk jaamu yàlla tamit. nee na suunu jaamu yàlla tamit. léegi xaw a taayal. léegi léegi màkk ñu xaw a taayal. waaye buñ la xalaatee rek. dañuy daal di takku taxawaay. nee na mbàkk nga nangul nu suñu cofeel. te nga ñaanal ñu yàlla mu dëggu ci ñun. te te yàlla nangul nu ko. delloo ñaanal suñu sët bii di sëñ Moustahine. ñoom ñëpp daal. nee na ñaanalal ñëpp Mbàkke ñaanalal ñëpp Mbàkke jërëjëf waaw sëñ bi sëñ sëñ sëñ Mamor teranga yi nga xam ne dikk nañ ko seen kàddu yu tedd yi ñu berndeel ko sëriñ bi moom laay barkeeloo rek ci ndigalu sëriñ bi berndewaat leen ndax bu nu fekkee fii ci kër sëñ Touba yëkkati kàddu yu tedd yi jëmee ko ci sëriñ bi manin ma delloo leen li alaaji Maalik waxoon ni tazalzalat istawinaati muluuki ka kahbatin salaasatu ayaami falam taxum mi wa fil wiladati minhu jafnaatun falaxat wan xilaabuhu jaabahu inda xaw mihimi sababuhu ma ulaamun sabahu abada wal yow mu sahru wala a mu sahru zil kerami haba bi sahrayni fii ji min xiyaamin wa fii daali hada mumsikal judraani zil himami ne wa xudrati maski fii ha i wa asraxa fii waawi wa fii zali saya saxa muhtazami waaye nag dafa ne fii ha takallama ne fii taa i fasaatuhu fii yaa i yarmi wa yuxyi absarul jismi min xabli amayni jafaran kaana sa adabin lillahi darru adibun saba fil yutumi am nañ mbégte daal am am nañ mbégte mu rëy eh, yàgg yaakaar ji dolli ko na eh, eh, alhamdulilah bi na yor li gën naa rafet xel dal na gën naa daal bu baax a baax gën a yeesal suñu lépp suñu positif yeesal suñu kël yeesal suñu cofeel yeesal suñu lépp rek kàddu yu rafet yi doy na lépp doy na lépp yéen doy na dara doy na lépp dégg nañ ko bu baax ci suñu xol dégg nañ ko bu baax ci suñu xol soññu nañu bu baax itam waaye kàddu yi soññu nañu bu baax tax na nu xeeb lu nu wér tax na it incha allahu ñu gën a fas yéene gën a feddi laxasaay gën ko ànd ak yéen ci lépp lu baax loolu rek mooy kàddu yi mën nu ci teg dara yow say kàddu moom doo doy na lépp kàddu doy na lépp tabaarakallah sant nañu bu baax a baax a baax waaw tabaarakallah ñu ngi ñaan itam bés suñu bésu maam bu tedd bii ñu dëgmal yàlla na ak seeg jàmm yiw yokk xéewal yokk saawan baawan waaw te nga jiite lépp Mbàkke te yàgg koo jiite waaw ñun njaboot ñu yàgg ko ànd ñu ànd ko fekk topp sa gannaaw la insha allah taala ñu ànd ko rek yàlla yàlla bàyyi leen fi allahuma ba tànk yu tëdd yu rafet yi dëgër yi eh, yàgg lool yàgg lool yàgg lool tabaraka taxawaay bi fa tabaraka allah rafet na lool fa tabaraka allah am nañ ci mbégte bu rëy rëy am nañ ci mbégte bu rëy rëy tabaraka allah waaye day ñaan rek ñaan rek suñu borom nañ leen fee bàyyi nañ leen sàmm gën a yokk lépp wa tabarakallah tabarakallah tabarakallah jërëjëf jërëjëf jërëjëf sant nañ bu baax كبر بلا كلاف يا متكبر الكل يا الله يا خالق الخلق لما أساء أبدا بالبر والسر والرلوان يا الله يا بارع الخلق خذ لنا فدعو ناسا وخن لي الأجر لله